waaw waaw gars yi wu leen waaye wutal leen sama gars fu ñu toog. Ndiaye affaire bi. waaw taabal. xam nga ki Omar Coof la. dinañ ñëw ci Omar Coof dinañ ñëw ci Baye Modou. waa mais yow kii du ngi nii. saa. waaw. ga yow baax nga. yaw baax. nga eh, jottali ma jottali na ñëpp baax rek xaaral ba ñëpp baax ma introduire. bu ñëpp baaxee ma introduire. jottali ma ko waaw toogal nii waaw aco lépp normal waaw kon defoon naa ne wax naa ko def naa ko waaw newoon naa leen ñaari gan laa andi Serigne Modou sa Dieng waxam rafet na toj na fi waxtaan wi riche na njëriñ na askan wi ku réeroon gindiku nga ma ne leen woon damay andi karnut yi mhm. kii xaritu ngonal la mhm. xaritu soleil levant la xaritu Sénégal plus particulièrement la jeunesse sénégalaise ndax jeune ku xaritoog ñoom am nga lépp jeune mooy yor réew ëllëg jeune ci la ministre yi nekk jeune ci la directeur société yi nekk jeune ci la artistes yi nekk jeune moo yorum réew nga nekk xaritu jeunes yi nekk xaritu jigéen yi nekk xaritu xale yi nekk xaritu ngorom ñëwoon nga fi toj fii dellu si waat fi di fi toj ci ay yeneen yu wax xam ni Carlou dafa màgg ci diggante bi ci ay connaissance booy la woon ba mu fi ñëw bee passé booy la woon <laughs> booy nga woon mais léegi dafa màgg ci diggante bi ndax lu ne xew na fi baax na ci diggante bi Carlou nuyool ñuy doog a dem waaw salaamaaleykum maa ngi siyaar euh, téléspectateurs yi ndax ñoom ñoo ñu fi teg hmm. bu mu si jugee siyaar euh, sama frère yi nga xam ne invitation bi ni mu demee hmm. dafa naturel hmm. dafa am bërëb bu ñu doon liggéey rek ñu ne mais teenoo jàpp ngondal bi di ñëw ñu ne acca naa la ko wax rek mu demee noonu li ko waral nag dafa am événement dañu faral di def ne génn bu nu génn si dafay am lu ko waral. Mm-hmm. Ah, loolu moo ñu fi indi tey ak tamit seet si leen encore parce que namoon nañ leen. ah dafa am nu war a nuyoo nag. ah dafa am nu war a nuyoo. nag ñu ah dafa am nu war a ah, ah, cey Omar Coof li ngay coof. man Omar jaaxal na ma. bay baax na rek bàyyi ko yi te dëkk bii nga. xaw ma ko la ko présenté après. Carlou nuyool waay. Hmm. waaw. waaw tey laa fi nar a toj ma. ñu dem ci euh, woote bi. woote bu woo Sénégal yëpp ñu ko na wax. yow xamoo kii day ça la gamme. ok. d'accord c'est euh, bu bees la boo xam ne. Mhm. dañ cee woy kilifa bu mag. bi ma ko tàmbalee nit ñi dañ ko dégg. incha allah mm. mu yëg-yëg boo xam ne. dama ci sant yàlla bi suñu borom dogalee. Mm-hmm. ñu yëg ko ba. war ko joué fii pour la première fois. ñoo am ñun ñooy mel noonu rek. ñun lañ fi am bari na. maa la ko wax mi ngi tudd woote bi. woote bi woo nañu géej juróom ñaari yoon maa ngi ci tefes gi toog di leen xaar jaay leen wuyu si ma pour baa leen di xaar ku jël li nga moom jox ko muy sëngam li nga moom mu jël li mu moom jox la muy sëngam li nga moom bàyyi li maamu lay baax naa sëriñ Tuubaa seede na ko bu ngeen xamoon li ma xam jàmm day bal Sénégal seydina Esarulaay Cheikh Abdoulaye Jawlaay seydina Esarulaay ko sagal Cheikh Abdoulaye Jawlaay aka fonkon lool bay la Mbàkke Cheikh Abdoulaye Jawlaay aka fonk yoonu muridulaay se mokkal lool si maamul wara asri la dallahi fi yëddi ba na kuy murit amul ci moom sago laay 18 ñun dañ ci sawar sunu 18 safar safar bi woon nañ ci kuy wu yoo laay laay sunu 18 safar 18 safar bi woon nañ ci kuy wu yoo si Malick si sunu 18 safar 18 safar bi woo nañ ci waa kër maam Omar bu ci wutaal sunu 18 safar 18 safar bi woo nañ ci waa kër bu Konte Njaasaan sunu 18 safar 18 safar bi woo nañ ci waa kër Seex na Seex Saalibo sunu 18 safar 18 safar bi woo nañ ci Canaba Canaba yi zimaamul wara asli la da fi yeddi ba tax na kuy murit maamul ci moom sago laay ñëppay wuy si laay maxtaar yow li nga woote ñëppay wuy ndax ah, ñëpp la woo 18 safar gi daal moom invité na ñëpp la woo jaratul nag ñuy tiire ay carte d'invitation leer na waaw carte d'invitation yi moom jarul ñu koy tiire Carlo woote na xam nga woyam bi lu ma ci jàng waaw dafa wane ne Sénégal benn famille la. dëgg la ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. loolu am dëgg ndax maam li maamu la woy. dëgg la ñëw ci 18 safar si. woote ci ñëpp. maam li maamu laay Serigne Touba. Sëñ Babacar Niassène ñëpp ma xamal leen benn affaire c'est une même famille. benn famille la. donc woy bi tey moom la résumé. woo ñëpp ci bennoo. kon nag mu valable pour tour le monde nag. kon nag 18 safar bi lu ci waay bëgg na ko ci fas. lu ci waay bëgg yokk na ko ci fas mm. jàngoro gu jaaxal nit na ko ci fas mm. lu lënt ci xolu nit rek mm. ak xelam lu yokkute ak lépp na ko ci fas insha allah yàlla na ko dogal marché nit jaay ko fu muy jël waaw la parce que bu ñu jógee di safar jëm euh, ko doon dégg mooy waaw mais bi yoon waaw ngeen fu mu jaar waaw dafa teggi virage loolu exclusivité waaw ci spécial waaw waaw waaw waaw. waaw parce que xam nga loolu li ma wax la rek. maanaam tuubaa la bokk. Mhm. waaye wane na na ñëpp benn famille la. Mhm. ñëpp fa yàlla. Mhm. du dëgg. moo tax moom mu woyee noonu. man nag li may ñëw mooy lii tempo bi ma dégg nii. daf ma jox ay asiko. waaw jox ma genre kii yooyu Carlou. yow da nga doon parce que mës naa ko laaj El Hadj Diouf parce que El Hadj Diouf ay woyam wax la. muy El Hadj Diouf bu bu bu bu nekk Canada. day mu ne ma man damaa jaar ci théâtre damaa jaar ci asiko. doog a ñëw Karo da ngaa jaar ci loolu wala yow. waaw bu dee ñaari point yooyu ngay lim je pense que jaar naa ci effectivement asiko ñun ñëpp fooy nañu nawetaan euh, toog di seetaan football ñuy asiko ci loolu la ñu yaroo donc mi ngi ci suñu deret bi à part loolu ay africain la bu dee théâtre bi euh, jaar nañ ci je me rappelle ACAPES. Euh, fa laa jànge primaire mm. dama doon def théâtre et il y a longtemps aussi opéra bi ñu jugee y a longtemps ba léegi ñu ngi dem euh, ak ñëw ci ay dates yu am importance théâtre la opéra théâtre la euh, acting ba pare di réciter ay textes yoo xamante ni xam nga. aussi si. ñu woon fële 2002 la la la mujj. parce que groupe bi nga nekkoon nu tudd. waaw Navajo. indien ya mais en tant que danseur nga woon. en tant que danseur waaw. après PBS aussi jëloon ngeen jëloon ngeen. 2002 yéen a ko jëloon. mais Carlou xam nga loo bëgg a xam. Hmm. man daf ma jaaxal Carlou ba nga doog a door da nga doon rap en fait. yes mais léegi li ngay def nii dootu rap da ngaa xam ne rap bi dafa doxul Sénégal wala lan la. parce que rap dafa am benn public am waaw hardcore ko de non xam nga bi ma yegsee da ngeen ma dalalee waaw léegi dafa màgg ci diggante bi ah, ah. ça va pas dire que euh, dafa am euh, lu positif lu ci rap rap âge la euh, boo ci tolloo dangay am ay ressenti da ngay am loo yëg loo xam ne da koy bëgg a bokk ak ñi nga bokkal jamono d'accord loolu dox nañ ko ba noppi. Mhm. jamono yi je pense que sama taaw bu jigéen bi moo may sono ak rab heure bu nekk mu la maa la dàqa. ah waaw waaw ah, man kay ah mu man maa la dàqa. Ah, yow daal da nga gis ne rab bi âge waaw culture la. ah si. nit du rab ba am 50 ans. am na ñu koy rab ba léegi. waaw ah. Jay-Z. waaw Dr Dre mais dafa am lu ñu gérer maintenant seen carrière. dafa tolloog seen âge ak seen public. Carlo Mbadou da ngaa gis ni rab bi li Cheikh Ndiaye wax la rek. daa doxul ci réew mi. non euh, awma ci gis-gis ak jugement man damay topp sama sama yëg-yëg ak sama génération. mais Carlo li am na benn affaire boo xam ne bëgg naa nga wax ñu ci tuuti. Carlo li temps PBS temps daara ji famille yi. Mm. rab Sénégal moo nekkoon number one ci Afrique. Mm. Mm-hmm. du dëgg mais léegi nañu waxante dëgg rab Sénégal jéggatul suñu frontières yi. lan mooy problème bi lu tax loolu lan mooy problème lan nga ci xalaat waaw loolu mais man dugg man dugg naa boîte ñu tegal ma morceau bu hmm. bees tubaab yi dugg naa boîte ñu teg morceau daara ji dëgg kon da lay wan waroon na lan mooy problème bi non euh, li mu demee mooy xam nga Sénégal dafa bi rap di commencé noonu du rap rek waaw musique en général Sénégal moo mel noonu Sénégal lu bees mooy ne ci kaw lu bees lu ne mhm. moo ñu ci kaw ci wàllu bépp nag rab bi bi muy commencé ay euh, sunu flavor ay positive black soul pure fresh. sunu flavor daara ji ñoom tonton mag. waaw mooy euh, Saly Matin. xam nga waaw. ñoo doon remplir stade yi. ah mais léegi. Ah, nit ñi dañ mais mais man am na am naa ci benn am naa ci benn xarit boo xam ni moom il continue de remplir les stades ah. muy kan. Euh, rappeur bi rappeur. non du du pas Dip. le gars bi nekk France là mu tudd. ah mu ngi noonu. Euh, damay fàtte tur bi damay ah, fàtte tur ah, euh, ah? ah moom daal temps yi génn na nee na nee na Sonko la faral. Eh, eh, eh. kookal la. Edzo la. lu Edzo. dem leen dinaa xam tur bi. waaw kay kon nit dof moom. mais nit dof mi ngi mi ngi remplir stade yi fii Louga wala fii Ndakaaru wala ay Thiès ak yooyu mais man ñi may wax man dañoo àggoon Afrique ak monde bi ci loolu laa bëgg nga développer où se trouve le problème ñooñu yow yaa leen suivre tout mais ñu ngi ci beneen level mm-hmm. ah si foo demee si rencontre yi hip yi di daje ci àdduna bi boo fa demee da nga leen di gis ñu toog di lijjanti seen moraado yi li ñu tollool seen jamono parce que dootuñ fi nekk di teeg tubéy di dugg ci boîte yi di lépp ci fii ah yooyu non c'est xe doxatul ak ñoom méngootul ak seen doxin. Hmm. waaw seen démarche ak seen philosophie ak seen gëm-gëm euh, dafa màgg ak seen génération ñu ngi invité seen ay euh, public man tey jii am na public yoo xamante ni chaque mercredi ñu ngi woon jës fooyu vingt une lañ fay dugg ba trois heures du matin ñooñu bu mu leen wootee jës fooyu du ñëw d'ailleurs loolu moo tax ñu joué grand théâtre waaw dañ ci ñëw grand théâtre nga leen di woo ñu ñëw. dinañ ci ñëw. public day màgg ànd ak moromam. mais yow léegi dootoo joué ay just for you ay. waxuma dootuma joué just for you. waaw ça dépend ci sujet yi ak occasion yi. mais am na ci ñoo xam ne bu ma bëggee ñu ñëw. damay dem grand théâtre tey Europe fan nga ban salle nga visé bu gën a mag boo xam ne yow sa rêve la pour nga joué fa. xam nga man la la la mooy sama sama sama problème. Hmm. man défi du sama problème. Euh, du ma toog di xalaat. lii mooy sama défi je fais ce que j'ai je voilà je fais que parce que dama commencé teel ci ay public yu mais immense honnêtement pendant trois ans kenn xamu ko parce que j'étais avec le poste de l'action radicale waaw def nañ àdduna bépp waaw joué nañ plus mille personnes lu dul benn lu ñaar lu ñett li may wax maa ngi ñu may déglu. waaw occasion yi star bu nekk gis na ma mais bi ma ci def bi ma ci toll man loolu xaw ma ko woon c'était nouveau découverte la woon. d'accord je m'amusais en tant que star. Hmm. en tant que plutôt sénégalais. buy rêve nekk you know quelqu'un superstar. mais yow gëm nga ni yow sa bopp yow moomu too sa bopp suñu bopp. loolu moom te daf ñuy neex aussi ñu gis la ci level yooyu lu mel ne ay Nokia ou États-Unis lu mel ne lu ay ay ay ay jënga maam waa xaaral lu mel ne ay Angleterre saal yu suñu mag yi a boobu nga yor saal bi fa gën a mythique waaw euh, joué naa fa joué nga fa ak sa groupe yow. te nit yëguñu ko ba bien sûr. c'est ça le problème nag tey parce que tey Angleterre. waaw dañu am reine. amoon nañ Margaret Thatcher. léegi def naa reine Elisabeth moo fa ne waaw. waaw nest kon tey Carlou man dégg naa xaw ma ndax am na ou pas. que ni ren bi. Mhm. invité na à plusieurs reprises. Ah, Carlou bi mu koy mu koy woy. toog mais mel ni du woon moom. loolu am na wala amul parce que ren bi c' est pas n' importe ren bi du Angleterre rek la gouverner. Mm. Angleterre pays de Galles Scotland pays yu ko war yëpp. Mm. léegi. mais loolu bi mu mujjee deful trois mois. ren bee law invité. deful ñetti weer. waaw débattalal ci loolu Carlou ñu noppi noonu. parce que loolu yéem na ma maanaam. lu ma si après. waaw nan la connaissance bi duggee. mais xam nga carrière day méngóog nit ki. Hmm. fii loo fi woote di nga ko justifier. Hmm. bari na lu bari looy woote loo xam ne attanoo ko. Hmm. mbaa rek nit ñi nangul la ko. ndax looloo la neex ndax bëgg biñ la bëgg. waaye loo fi woote di nga ko justifier artistiquement. bu dee da nga bëgg def carrière carrière nit la moom lay faral di wax asan tout le temps carrière day lekk day naan day feebar. day sawar du mm-hmm. tayal mm-hmm. Mm-hmm. koy topp nag normalement di ko jox li mu soxla au jour le jour occasion bi ma am chance ku mel ni euh, reine des Pays-Bas mooy jëkkëram dafa doon rêvé def un opéra africain mooy opéra du Sahel bi mu génnee àdduna moom mu a def koy créer pour jëkkëram bi mu ko defee un certain Wasis Diop Waziz Diop. jaar ci sama yaay umu si. ñu contacté ma ma ñëw bokk ci sélection bi participer ci opéra bi. prince bi euh, Constantin ak magam bi nekk roi il y a pas longtemps décédé ci benn doon euh, def. Euh, mhm. ski mhm. Mhm. sur glace. ñëw Mali pendant un an toog nañ ko fa di ko répété ñuy dem ko ñëw dem ba mujj gi mu nekk famille mu jàppee ñu ay doom yàlla dafa def. man dafa benn relation bu naturel bu am suñu diggante mooy fu mu bu ma gisee day day sama doom nga ci loolu yàlla moo koy moo ko moo ko d'ailleurs benn anecdote mës naa dugg aéroport Amsterdam bi si ñëw ñu jàpp ma ne ma toogal ci police bi mhm. ma ñëw waa ji ne lan nga fi wut si ma ne ko ma tourné gis comme ni ñuy tafee photo président yi ci mhm. bureau yi gis ren bi ci mane ko kii moom invité waa dañ naan kii dafa dof waaw <laughs> kii wér na di ma reetaan ko ah moom mooma woo su ngeen kii euh, numéro yi mu ngi nii bu fondation bi ñu woote si numéro bi ñu effectivement moom la xaar pour répétition d'ailleurs il doit répéter pour. ñoo la yóbbu nga àgg. ñoo lay escorté. <laughs> mais xam nga yooyu mënoo ñëw di ko nettali day mel ni que. waaw léegi man waaw li ñu li ñu. da nga koy dund normalement euh, bu Sénégal. defe nga ni nii la ñuy tabaxee tabaxee mbir. Hmm. wala nii la ñuy bëggee mbir. tey ay Côte d'Ivoire ay Nigéria. ñooñu dem nañu Nigéria. raw man. dama ko jàngat ah dama toog jàngat ko ma ni euh, sénégalais bi dafa bëgg defetu moroomu sénégalais. sénégalais mm, bëgg defetu moroomu sénégalais. tey damay cité non ah. mm-hmm. bu fekkee un certain Wally Seck nekk xale ni moom dafa jël initiative wu dem Suisse joué ci salle bu gën a mag. Mm-hmm. ma defe ni fierté euh, sénégalais ak musicien sénégalais yëpp la war a nekk. dëgg mais li ma tey benn Pape Diouf ni ci sama défi la wala ci sama bëgg-bëgg la ma dem saal bu mel ni Bercy gée ji fa ndam la ñu defee ni loolu suñu ndam la war a nekk mais man léegi Sénégal musique bi dañuy topp benn Pape Diouf wala topp benn Waali wala topp benn Carlou D ci seen caméra bu ndaw wala ci seen téléphone bu ndaw di xool ndax fees na wala feesul quoi hmm. pour loolu après bu feesul victoire la Hmm. ci ci ci Sénégal ci lu ñu bëgg ñun ñu ni ñun dañuy construire dara pour tabax dara pour mu jëm ci kaw. Hmm. no dañuy xool côté bi bi négatif li li gën a négatif ci spectacle bi. Hmm. loolu la ñuy ndamoo. entourage ba la rek. loolu lan la lan lan lan lay expliquer loolu ci yéen ci ci environnement bi ngeen nekk yéen. bon honnêtement pour être honnête avec toi. man day difficile trop ma tontu la ci loolu. waaw mais sama gis-gis mooy. waaw parce que lépp musique la ci ngeen nekk. Ah, je sais sama gis-gis mooy li nga wax lu wér la. waaw nit ñi dañu war a jàppale jeunes artistes yi. waaw ñu teg musique sénégalaise fenn fii. Mhm. parce que réalité yi fii ak boo génnee bokkul nit ku nekk nag ak sa mbébét li lay yëkkati. Mhm. sooy démarré sa mhm. koñ ngay démarré. boo amee sa koñ après quartier bi après quartier bi région bi après région bi Sénégal nga doog a génn de suite mhm. mais euh, effectivement comme ni nga wax gis naa ne euh, internet bi def ci joué lu bari mhm. def ci joué lu bari internet benn post photo yàq na carrière u jàmbur wallaay koo xamante ni addunaam yëpp musique la dafa am njaboot li nga wax am na lu ko gën a soxor fuuf luy xew ci suuf. ci suuf lu feeñu te yëguloo ko. Mm-hmm. loolu nag. ci ñun la fekk baax ko malheureusement. mais man loolu Carlou je dis que bon mën na am sax ma am na États-Unis xëy na am na Nigéria gi ñuy dégg xëy na am na lépp mais man dama bëgg expliquer ma benn phénomène bu ndaw comme la ko saawaxee léegi. te Nigéria seen musique dem na. par rapport ak hip hop bu américain sax Nigérians yi ñoo nekk ca kanam seen musique dem na. maanaam liggéey nañu te dégg naa ne seen état dañu leen di subventionné sax. Mhm. pour ñuy mën di doxal. dafa am subvention spéciale. pour loolu pour cinéma ak musique. waaw kay waaw problème bi ci suñu waxtaan maa ngi fàttaliku. nga wax wax ju doy waar sénégalais soxorul dafa ñàkk. Hmm. Hmm. sénégalais soxorul dafa ñàkk. lu ci bari ñàkk moo ko indi mais sénégalais bu féex. Hmm. Mhm. day baax moo gën ci nit ñi. balaa nga koy wet demal Europe. dëgg la dëgg la da ngeen di dem Europe di dem ko gis ngeen comportement bi gars yor foofu. ak bi ñu yor fi bokkul. quand tu à l'aise da ngay da ngay mën liggéey tranquillement da ngay bëgg Sénégal. parce que nit ñuy doxee ni ñuy acquérir nit ñi mais c'est extraordinaire mais fii lu ci bari ñàkk la munuy nëbb nag. Hmm, léegi Carlou. subvention yooyu moo war a ñëw ci musique bi. Hmm. machine bi dox affaire yi dox je ok mais man seetlu naa leen léegi ñu ñëwaat ci Carlou ah. Carlou vraiment dama koy gis ci statut xale yu jigéen ñi. Mhm. di ko gis ci statut ñëpp ñëpp. foo gis Carlou rek. Carlou Carlou mbëggeel rek lay woy léegi. c'est le roi. <laughs> mbëggeelu yërmande oh mbëggeel rek léegi. da jàpp waaye tegal ñu kilifu ah? mbëggeel bi. ah lan la la léegi lan la mbëggeel boobu yow da ngaa gis ne thème bu dox la ci réew mi. wala lan la mais seetlu naa daal mbëggeel sa et puis morceau mbëggeel yu riche la yore. moom du def ay a AS ay ion ion lay def. attention ak loolu lépp mbëggeel la. car hmm. loolu nga xam wala lan la wala clip bi wala ma ma lii man a xam naa ne lii nag da cee la ci jël. moom non non dafa xale bu jigéen bi mi ngi ci suuf moom mi ngi ci kaw. waaw gis nga loolu. waaw la la mère ba waxoon la. waaw la mère ba waxoon lan a mère ba waxoon. ah oui ma ñëw leen ci plateau baa ngi toj. na plateau bi leer. la la mère ba waxoon. lan la maire bi waxoon. man ak Carlo di mii. loolu dernier épisode émission bi. man ak Carlo di mii. Ah. ak sawaay mii. Ah. am nañu fu ñu daje. Carlo kon fekk ko coono mu toog mu am lu mu ko wax. kon ci mbëggeel Carlo ci mbëggeel lan la lan lan moo tax nga choisir thème mu mbëggeel. waaw mooy li ma wax rek. nit ku nekk. li nga tollool rek nga mën a wax. Mm-hmm. li ngay dund nga mën a seede. Ah. bi ñu doonee tout le temps démarré. ndax doon mer rek. di wax li ñuy dund wax ko seedeel ko ni ñu bokkal jamono. waaw bëgg ñu ci lool. Mhm. topp ñu ci loolu bi ñu demee ba nag suñu borom def ñu ami soxna ami doom loolu lañu xam moom la ñuy séddoog ñi ko ñi koy dund ak ñun. bëggeelu ngir ñu bën ci jëli njariñ waaw bëggeelu papa bëggeelu papa ak doom bëggeelu jëkkër ak jabar bëggeelu xarit ak xarit waaw bëggeelu fars ak waykatam exactement mais xam nga xam nga Carlou waaw Carlou defe naa mag a ko yar waaw dëgg la dem na ba toog xam ne senegal gi looy def loolee na ànd ak cung ak xii na ki waaw loolu nag mu dugal ko ci moom waaw dem na ba xam ne senegal gii booy woy doole ci mbëgg naa la maa la raw dëgg la mu dugal ko ci daan na ceg daaw ceg cagatul daaw ah, léegi ah ñeme na ko ceg daaw léegi daaw kilifa léegi dégg ko doomam ci jigéen ji day raf moom muy ceg daaw moom bu njëkk da nga koy te madame eh, madame nag eh, eh, madame dafa. bu bu ñu tegee archive bi xoolaat suñu émission bi. ñi ngeen solo ah. woon ak ñii bokkul. am na ku ne ci ginnaaw. yéen ñëpp yéen yu baax yu li lii. c'est raffiné lii c'est ah. waaw loolu ci théâtre la. ah xoolal lii. loolu léegi lan la ku ne ci ginnaaw ah. ah. mbëggeel gi kon daal loolu li ma wax la da ngaa gis ne Sénégal daal mbëggeel dafiy dox nga way mbëggeel mbëggeel fépp la dox amul fu mbëggeel doxul. waaw lu tax teeloo xam loolu ci commencement ba nga ne ngay xas. boobu xale xale laa woon boobu xale nga. kon Karla ñamal ñu ci benn mbëggeel bu ñëw. ci benn mbëggeel. lu ma ko waroon loolu moom foofu ñamal ñu ci mbëggeel teelul xam ni eh, sumbuloo zozo a mais boobu ay eh, déet boobu temps yii maag tullee ngeen bëggeelante ci télé bi. di toog non ci maag bi mais sama jabar loolu ci filmé. après ah, émission waaye daal yow. mais xam nga nag Zouzou daf ma yem. Karlu Mbëggeel yow. Karlu Mbëggeel trois ans yi ñu passé yëpp Mbëggeel rek nga joué. Ah. trois ans yi passé mbëgg quatre ans man damaa xam fu muy xasan ma wax ko fa man nangu naa mooy xasan ci man kon jeex na kon ñëwal ñu ko mu ñëwal ñu bëgg ñëw ci Omar Diouf man Omar Diouf xam naa ni bàyyi moo di la muy ñëw ñëwal bëggeel du leen lu dul reetaan bëggeel du leen lu gi xaajee nga xool ci kaw gis bi deew yi bari lool teg ci la nga xam ne am na ku la bëgg kuy xooloo ndoog yow biddew yi leer soxol leer soxol fër nga daal di mbëggeel dafa bari doole ndeke mbëggeel dafay maye doole ndeke mbëggeel dafa bari doole ndeke mbëggeel. Carlou D di woy mbëggeel. vingt cinq minutes. waaw nga maye ko. kenn xulloo ki nga nobanteel. Ah. foon ko. woon ko nga wokk ko. mu xuri la. jege ko. ne ko. taf ko ci sa kaw. sangu leen. laxasu ah. Carlou nga ni. damay damay dëgër rek damay dëgër. waaw waaw waaw Carlou jawal. le couple yëpp juboo. waaw waaw. ku ci juboowu la ki nga nobanteel. mbëggeel wàcc na la. maanaam waaw. solal ma loolu. waaw ah. dugal dugal dugal dugaatal ruus dugal ruus ñibil ñibil nit ku ne war naa bëgg nit ku ne war naa dëggu ci ki mu bëggee nit ku ne war naa dem fi ñu ko bëggee te sori ñi ko bëggul ku ne war naa bëgg ki ko bëgg ku ne war naa dëggu ci ki mu bëggee amiin topp ko loolu loolu di ko forcé. fa metti lool. waaw ah, waaw. loolu la ñu dem. xamal li nga yor ma ku lebu xamal li nga yor waaw waaw eh eh Kumba Touré jël si ma GFK pick up ma terminal bi ba borom borom bagage doy waar la ci man ko ñu doy waar sax Maguette la santé doxal dox bi Grand Théâtre le 10 damay wàccaat ba ci suuf zéro acca waay ada sëy bëgg naa la na ñëpp taxaw le 10 grand théâtre ñooñu am nañu lu bokk ko léegi dafa am loo xam ne waaw papa seetaan nee na mi ngi lay ñaanal yàlla borom macha allah hmm. na ñaan grand théâtre mais Kaar kii mooy roi waaw moo ko moom dinañ ci ñëw de mais Kaar mbëggeel gi nga woy parce que soirée damaa bëgg Kaarlu defal ñu benn affaire bu rëy. waaw Kaarlu dama bëgg nga wax ñu. Hmm. soirée Kaarlu am na ñaari kilifa yu rëy ci réew mi ku góor ak ku jigéen ñu fa nobaat fecc ci soirée ba. man waaw naa ba jàpp. Ah. kilifa kenn. man boo waxee ma tuddee am na ay sëy am nañu sëy nañu même bu fa sëy amee sax. mais sëy nañu ci soirée Kaarlo. loolu yëgoon nga ko wala yëgoo ko. mu nekk témoin bi. waaw yëg nga ko. loolu am na. ban morceau nga doon woy si Kaarlo ba ba ñooñu nobante foofu. <laughs> mooy. foofu la ñu xamante. bëggante foofu sëy foofu. Kaarlo nekk témoin. ay sëyuñu foofu am na sànq. takk ah, sa waay xoolal kii génn ko kër gi même boo ko ah. fekkee sa waay daa toog moo këram. di wax loo xam ne sa safaanoon naa na mu demee dégg déglu na amoo yar bi noppi amoo yar sa loo xam ni safaanoon na mu demee nga suturaal ko loo daan wax yow ñu sutura sëyuñu foofu dañoo nabante foofu après génn waaw loolu doxaanante ba taxawee non non li mu wax lu parce que ci ah. bi waa ji yegsee da nga ni fa lañ ko taqe kaa ndaw si moo ko utal place mu toog ndaw si waaw bi ko ndaw si utalee place waaw xam naa sax ay xam ne ko. waaw sama anniversaire ñoom ñaan ñëw dajawaat. waaw waa ji def yi fu Baay Faal nag. Ah. waaw di di di. dinaa nit tey non ñëwal rek Carlou nga waxoo tur. waxoo tur Carlou non pour ne soirée Carlou lu ne fa mën a am. te ma noppi. waaw li ma ñàkk ñàkk lu palaas. kenn du ko. kenn du waaye daal lool day wane ne ay soirée Carlou. waaw xol yu féex ak yu neex rek a. bul tax ñi nga xam ne dañoo ñàkk ku ñu nobante. moo fay dem ah bëggee lii muy way. xam nga loolu dina indi ñaar boo dend jigéen day nelaw sa kaw. waa déglu ma muy way dina indi ñaar problème. Ah. ku bëgg a dem sa gel wala sa jabar dina la téye dina da nga fay nobante wala ñi nobantewul di xëccoo buntu ba. dem la rek na am xëccoo ma rek. man nag sama soirée loolu mun naa koo namoo ca kaw. waaw mooy lu muy def sa soirée. ñu ñëw ay nit yiw lañu. waaw loolu barki Serapal ay kilifa. ay kilifa bu ma nee kilifa du kilifantu ay kilifa dëgg. waaw nag booy way waaw waaw dëgg ñëw def yu bu mat bëggante. waaw baax na waaw ña fay nekk daal sëy bii rek moo ci siiw ndax yàlla moo dogaloon mais sëy yi am ci sama soirée bari na. Hmm. bari na hmm. trop. nasaraan. Mhm. xeet bu ne barke Sëñ Tuubaa. waaw Karl. Hmm. lu gis mais Ndiaye. saa <coughs> sëriñam murit la suñu xàbbaat ku ñeme dañ laa dee. wér na loolu mën wax ci kilifa boobu. Serap mooy Baye Fall. Mm-hmm. kuy sëri kuy sëriñam. mais ñu bëri dañ la jàpp ne sa kàll sëriñu Baye la am xam nga foofu lañ la doon xaaree. waaw loolu ci suñu jamono. Mm-hmm. ñu ci bari ñu nekk Baye Fall ci ay Baye Fall lañu jox. Mm-hmm. mais man galas Baye Mbène mooy sama bunt ci Sëñ Tuubaa. sëñ Fallou mm. mm. sëñ Fallou mooy sama bunt ci sëñ Tuubaa yàlla def loolu quatre-vingt-dix la suñu borom def dama musa wax ki may may soxna ci jëwrin mooy doon sama sëriñ ñu dem màggal Tuubaa ñu may ma soxna ma jokk ci saa si mm. noonu la deme <coughs> mais dégg naa màggal Tuubaa kaaru da ngay takk ndigg di joxe xéewal yi joxe nanga màggal bi ren noo ko naree. ku dof. kenn doful dem ba Touba di jaay star rek boo wàññi bu tubaa bu Touba bu Touba ñëwaatee kenn du la wax takkal sa ndigg. daam seen defoon na ko Touba sëñ Bambaye star bi amul beneen. waaw daam seen. Mm-hmm. Touba la dem. ay dërëm a ngi daf maa yóbbante mu ne ma mu ne ma seex ma ne ko naa mu ne ma ginnaaw yow yaa siiw ba ñu lay xàllal jëlal ma lii sànnil ma ko ci xabaru sama sall nee a xew waaw waaye ci la aji ci la ma tax ko bi ñëw tas rek adduna bi la <laughs> dëgg la loo ko wax mu assisté la musuma gis loolu dëgg la man da ñaar ñii xalifa Ababacar Seck sëñ Fall mm. du ma leen wax ñu assisté ko ndeysaan la deuxième fois nga ma koy wax vérifié non moom moom waxee loolu wax na dëgg moom. xam nga xam naa bu dul wax dëgg ñaari nataal kay yor naa ko suma kër. ñoom laa fa yor jàkkaarloog moom. moom ma ma ma eh, maa ngi <laughs> maa ngi dem maa ngi dem nag. <laughs> waaw. te li may wut ci njaboot gi la jëm. waaw ah. sëñ Fallou ak Khalifa Ababacar Si man ñoom samay xarit lañu. waaw Carlou man dafa am benn question. Uh-huh. ndax Carlou dama gis ni nga mel kilifar kër gi. waaw ni nga mel ak Youssou Ndour waaw ni nga mel ak ki nga xam ne defe naa ne moo représenté musique Sénégal partout dans le monde. Mhm. seen relation ak moom fan la débuté fan la toll. waaw euh, Youssou bi defe naa ne bi may mujj ñëw ci kër gi. sama album laa indi woon. Mhm. déjee ko ko. déjee ko ko ndax. ak gore. ndax am na na fu ñu jaar. am na ay privilèges. am na ay ay ay ay ay opportunité yu ma am ci ànd ak moom te benn yoon la benn tournée African New Voices boobu ba léegi nag ñun Baye Fall gi dafa dëgg ci ñun ba lu nu waaye defal rek mënu la ko mënul fayal waxal la ko ndax suñu conscience tranquille honnêtement muy nit koo xam ne ku baax la weesu na foofu. waaw mm. nit ku ku ku am yar gore ku xam nit. waaw ku yaru. waaw mën naa dugg fii ku yaru la. def waaw mën naa dugg fii def li muy def ba noppi génn. de la France sax booy woy day kontaan dana ne ah. non ak la France bëgg la bu naturel. Mm. boo xam ne moom dama koy sant yàlla suñu borom. ndax kilifa gu ma tasel rek day mel ni bi nu xamante yàgg la te respect day daw cofeel gu gu naturel. mais noonu laa ko bëgg itam ci. Mm. jomam. Mm-hmm. fulla nit mënut a wax ba mu tontu la. mokk loolu jàng naa ko mag mu yaru la. Mm-hmm. wér na waaw ah, mu yaru la. yal na nu yàlla musal ci mag mu yaruwul Sané. amiin amiin amiin. Mm-hmm. Ndiaye. Caro mm-hmm. dafa changé li muy solo xam nga ci bi. waaw. nekk ci ginnaaw. waaw Assane. Assane Lo Assane sama copain la. Assane Lo loo xam Demba ma Demba gën laa. Assane Lo nag yéen ñaar dinaa leen boole ndax yow tamit ku bëgg. waaw Ndiaye moo tax yéen a bokki gaam. bu mu nee muy gaamam. deux gaamam bu bu moo ko yor ci lan. mooy ménageur am. ah na leer waaw waaw. mu ñëw rek wax mu tuuti ci kaw. kan Assane ci bopp Assane waaw waaw Assane Lo war naa mën a ñëw tam toog nii wala mu toog ci wetu kii ana Assane ana mi xàmme naa ko waaw bële bi ah xoolal Assane mais Assane loo xàmme naa ko. xoolal Assane xoolal Assane la mu def. xàmme naa ko de. jëm saa est-ce que doo ko takkal doo ko doo ko doo ko. Ah, non non non damaa fixe damaa fixe waaw kay waaw kay. Assane Carlo Ngom. mënu maa abal kenn. loo mën a wax tey ci Carlo. waaw deux minutes rek. Assane waaw Assane waaw di day ñëw. Assane waaw waaw waaw non mais c'est juste que lu ma bett la parce que c'était pas prévu. mais nag kii moom lu ñu lu ma wax ci moom je pense que tey dinaa ci def tuuti rek. Hmm. parce que si bu ma sax di témoin. lenn daal naa la ko xamal yéen a ngi wax ci peut-être que lim na grand bi. waaw que ku baax la ku yaru la maa ngi yaru la mais moom it gune gu yaru. tey na respecté na doomu aadama. te lu ñaaw xam. maanaam loxoom seet na mën na bokk ak ay mag ndam. di leen wax nañ aussi que ne moom musique bi. Hmm. daf ko def par passion. mais def ko compétition. dëgg la. parce que su doon la communication. mën na la kon bokkul ci bid bi parce que bid ci communication c'est pas toujours sax des fois ma ñëw. xaw ko kii mais mu dalal bien vrai que dama ko mag. du sama peut-être de classe ou camarade de classe ou quelque chose tout ça. bi ñu dalee ànd ak léegi yàlla def na lay matul ñaari at. mais daf mel dañoo ànd dix ans. parce que c'est des fois mu ñëw indi xam na ko mën na ko. mais ma koy bàyyal. ndeysaan taalibe la loolu cër la. yaa ngi yow exactement fa mu àgg fa mu jëm. di ko di leen wax ne leen aussi ku bëgg stafam. ndeysaan. day xam li muy xam. ñun duñ ci xam dara. Pape Cheikh ñëw indi fa lu ko neex yéen. bu ruubee bu ruubee mu bokk ko neex. donc li ma leen mën a xamal daal ci Carlou mooy nit ku dal la. bëgg na ñi muy àndal. bëgg na stafam. bëgg na njabootam. bëgg na sëñ Bamba ak Cheikh. ba pare nag naa la xamal dara bi may tëjee mooy. Carlou mhm. du nitu kuy euh, defal maanaam li nga xam nga teraanga dañ koy fësal. mais ndimbal dañ koy nëbb ndimbal la taalibe la yow sa wax rafet na trop yow sa wax rafet na trop yow Assane Assane fu mu temps fu mu jeexee na. jeex na waaw du doy kan lay ñëwaat. it kat temps bi jeexul ah. jeex na jeex na mais dañ koy bàyyi mu doxal. ci grand théâtre bi laa bëgg mu wax ñu. waaw waaw après ñu yokkal tuuti balaa Omar Diouf di ñëw. waaw grand grand théâtre bi ak bi mooy ñaar ak bi mooy ban édition bi. bii dafa xaw a spécial ci man. waaw parce que. Euh, grand théâtre yi ma mës def yëpp. Hmm. man maa ko organisé. waaw bii nag c'est-à-dire man maa jël suma xaalis dem fay. waaw jël saal ak tout ce faut. mais bii dafa gën a mag. ci sujet parce que levée de fonds la. Hmm. boo xam ne benn mouvement moo ko sabab muy Comeva. Comeva nag li tax ma dugal ci sama dugaluma ci sama loxo sama jëmm laa ci dugal. Hmm. ndax. tey mooy anniversaire suma doom bi mujj. ndeysaan muy joor Eva Marie. ma tuddee ko mama Eva Marie Coll Seck. Mhm. moom mooy borom Comeva moom moo woo président le 10 grand théâtre le 10 lan. le 10 novembre novembre bi. woo ci gouvernement bi yëpp. ba pare ne ko sama doom moo koy tëgg xam nga ku la wax loolu. loolu sas la sas la. Hmm. deseelatul dara moo tax muy ñëw di jàkkaarloo Sénégal kon daal fi santé xam naa ne moom dina fa dina fa. bari. maa ngi ñaan. Hmm. ku mës a jàppale Carlou. Hmm. maa ngi koy soxla ci le 10 bi. incha allah ci teewaay bi. na ñëpp ñëw. xam ne jàpp nañ ci ñun kay dañuy ñëw. yéen dañuy ñëw jàpp leen ci ndànk waaye bés ba yéen a nga fa. dama bëgg bés baa ngeen ñëw. waaw ñu teral leen parce que dañ leen a war foo leen taxaw ñu teral leen. Ah, donte donte donte waaw ah. ngeen di bëggalee nit ñi foo leen taxaw nit ñi wan leen amour bi ñu am ci ñoom. mais doyul bëgg naa daal ku bokk ci man. bu bés ba le 10 novembre teg na le 10 novembre. Carlou muy le 10 novembre ci Grand Théâtre muy ci yeneen année yuy ñëw ci yeneeni réew. Mhm. Carlou man gis naa ne sa yoon dem na. incha allahu rabbi parce que lu tax. Mhm. diw baax na. mbokk yaa ko wax mbokk yaa ko wax. waaw maanaam jërëm toog na fii wax. man mii sax ñii nga xam ni moom lay ànd ndool taxaw nañu ñun fee wax. maa nuyu waale ñaaña. soxnaam soxnaam ñaaña. daf may woo téléphone ci lu kaar lu yëgul. ku ko jàppale. ci lu kaar lu yëgul daf may woo téléphone di wax mbaaxam. ak gëm-gëm gi mu gëm musique bëgg gi mu ko bëgg. di ko def ak lu mu bëgg doomu aadama am na lu important lu waa ji wax léegi léegi. da koy def par amour képp kuy def dara par amour suñu borom dala cay fekk si mais booy def dara pour doon star wala def dara pour siiw wala def dara pour xaalis xaalis dalay woon ginnaaw star dalay woon ginnaaw siiw dalay woon ginnaaw le choses doivent venir naturellement tu es entièrement naturel donc euh, Carlo nit ku baax nga te da ngay sori le 10 grand théâtre dina toj. ñooñu laa yëngu waa grand théâtre waaw le 10 waaw ñëpp ñëw waaw. di. dama lay présenter Omar Diouf. waaw mooy Omar Diouf. Omar Diouf maanaam gis ni ki tey <laughs> lépp luy. lekk dama damaa juum damaa juum bon ah, xaaral Diouf ah, ah, Omar mi du Omar toogal nii. ci coof yi la nii maa amoon coof. Omar coof yi amoon mbër ñu leen ko waroon a wax. coof yi la désormais ah. Omar nag suñu jabar yi. gambaas yi. coof rek la ñuy def. waaw bàyyi la ñuy présenté naan gambaas yi. kii lan la ah. kii lan la. waaw waxal. coof suuf ko waaw. kalamaar. kalamaar. gambaas. gambaas. moom moo fi nekk. noo koy toggee. sëñ bi foofu ñu ñëw. mais restaurant Youssou Ndour moo ko toog. restaurant Youssou Ndour waaw. waaw Mariama. waaw bii restaurant la yàlla. waaw. nay goytu waaw yow daal sa spécialité yëpp jën la. waaw te lii dafa baax. Omar yow bëree woo. non du ma bëri. Ah. waaw léegi jëw njën bu ñu togg ak bu ñu toggul yëpp da nga koy da nga say spécialité da koy livré. waaw damay livré. waaw commande ku commandé ñu livré la. lan mooy sa numéro téléphone. 77. waaw 701 59 Omar Omar da ngaa toog rek nëbbu ma àdduna. dañoo bëgg désormais dañoo bëgg ngonal yëpp nga ñuy andi coow. ma ñëw saa. waaw ah, saa Omar. dañoo bëgg ngonal yi fi des yëpp. ngay andi coof bi. ndax waa Sénico. dañuy ñëw andi mayonnaise bi. Mm, dañuy andi dawlin bi. dañuy andi beurre bi. dañuy andi lépp lu jëm ci lekk yu mel nii waa Sénico dina ñëw. dégg nga. Touba gaz dañoo bëgg ngay jël di ñu ko koy lakkee. nga ñëw fi toggee ko fi. fuur Touba gaz. Touba gaz. waaw dina ñëw toog ko fii. ba ca des mooy. Mm. dañoo bëgg la 10. waaw ca grand théâtre ba. mu ñëw. nga ñëw defar reer ñii orchestre ba. waaw waaw la kay. kan fa fan la ñun fu ne la ñu jógee ñun waa Soleil la fa. am na ñu jógee Belgique. ñun waa Soleil la fa. waaw reeru orchestre ba. waaw kay. ak ñun dinañ ci lëkkaloo ak yow nga livré ko te coulisse ci coulisse wala gan amul gan yu jógee ay Belgique ak yooyu. nekk sa responsable. coulisse ah, bi coulisse bi rek. coulisse bi doy na coulisse bi doy na sax jënd la arrange sax nga doo ko yëg ci seen bi. maa la ko wax. merci beaucoup Omar jërëjëf Omar. ñu daal àtt si Carlo yi ak Carlo daal lan. waaw kay waaw waa Belgique yi. waaw ah la kon leer na. wala indi les factures yi waa Belgique yi nga xam. salaamaaleykum. waxal sa kàddu de nay leer nag joxe nga sa kàddu. kontaan naa trop trop trop si si. man de Omar dox ma jënd jàpp ma boo defee nii ma ngi nii. yaa ngi may nëbb àdduna yaa ngi may nëbb àdduna na. Euh, waaw vraiment lii lu rafet la. waaw Sénégal ñun ñëpp a ko bokk. dëkk bi nañu defar jikko yi. Mm. defar xol yi. Mm. xam ne lu liggéey rek a wóor. ndeysaan. man si Siras laa commencé. Ah. Pikine tali bu mag ko ñu jàmbaar. maa gënoon ni laa école mosuma jël cinquantième soixante-dix-septième soixante-dix-huitième laa doon jël. si quatre-vingt-dix-neuf heures. te liggéey rek a wóor. dama doon yéenu di dem géej di yéenu. école yi avancé nañ. daan na am 67 élèves daan na am ci benn classe. 99 élèves Ziguinchor. kon Omar. léegi ngoonal bu ne. Euh. waaw taalal la suñu loxo. ndax gars yi dañuy ñëw produit yi dañuy ñëw waaw boo fu jógee nga dem ci Touba Gaz. ma dem ci Touba Gaz ñi nga xam ni. Hmm. dañ leen a certifié ISO. Hmm. maanaam norme yooyu ñuy defaree gaz ca bitim réew. Hmm. norme yooyu la ñuy defaree gaz fii ci réew mi. ba pare ay doomu réew mi di ci liggéey ah, ñuy jàppale doomu réew mi hmm. Touba Gaz la diis dañoo bëgg ngeen sponsoriser Carlou D ndax nee na képp ku ko doom jàpp na démb ak barki démb ah, ren la la gën a soxla kon Touba Gaz nañ leen jàppale Carlou D ma ñëw ci Orange Money Orange Money na D nañu waxante dëgg xanaa xam yëg nga ne nit bu ko neexee jënd bi yëpp si compte Orange Money hmm? waaw ah waaw waaw bu leen neexee essence ak essence courant courant lekk crédit. lépp tout te ñoom it. ñu ngi sponsorisé ñëpp. waaw ñoom ñu ngi sponsorisé ñëpp yéen waa orange. waaw. bisu kàddu gi boobu kii doomu mi la. wàll wuñu ko. suñu fierté la. muy woote grand théâtre xam ngeen ne BIE organisé wul grand théâtre jàppale leen ko bu ko defee lu muy def mu mën cee am réussite cent pour cent kon nag Carlou Omar kontaan nañu bàyyi Modou la muy ñaw lépp du ay fo lii lii baay Modou ma ko def saa Baye Modou. xam nga xam nga Baye Modou. 218 0019. moo may ñawal 218 0019. ñaw bi mooy man daal. machine man daal bafu collection laa xam bafu collection. waaw bafu tamit suñu xarit la moo dëkk suñu koy. Oh. man moom laa waaye machine bay ñaw yii moom Baye Modou rek ko am ci Sénégal. bafu am na ko. Eh, Mapu. Carlo parce que dafa am benn sœur am nga xamante. waaw suñu xarit la su ma demee Paris moom mooy suñu njaat yi Mami Dieng. waaw Mami Dieng waaw suñu moom mooy jëkkëram Samba Sow moom la ñu nuyu. ma ne waaw dañu bëgg a wax xam luñu bëgg nga wax xam luñu bëgg nga wax Omar xam luñu bëgg nga wax Omar. non bés ba damay ñëw. jeex na yaa ngi traversé looloo ñu intéressé ak kalamaar yeeg yëpp maa koy. yaa ngi traversé Carlo tàggoo nga ca ñëwal Carlo. jeex na Carlo tàggoo nga ci wax ba pare. waaw Carlo ana pare yeeg mare mare nii. non pare yi ñu ngi fii ñu ngi fii ci Carlo parrain yi woo nga ci le président de la république di Sénégal. le premier sénégalais. dafa war a jàppale Kaam. loolu moom dama koy bàyyi. Adja madame Sall. moom ak première dame. waaw moom sama maman moo leen. invité moom moo sasoo loolu. ah, ah. danañ ci première dame nag moom ak bëgg nag yooyu noonu dina ñëw sax. dina ñëw moo tax bii paas bii bii di ñëw dañ koy def. dañ koy dañ koy gën a sénégaliser. waaw moom dafa bëgg moom ah ñun ñu ngi doog am première dame sénégalaise de. ah waaw kay day Fale day xeeñ cuuraay léegi Fale day xeeñ cuuraay léegi. moo tax bii mag mu fa ñëw daal. di nga yëngal sa mbagg. boo waa jëm sa tànk. Carlo Acha. ah rek nga woo ko gum woote goo keneen keneen keneen. damay bañ a juum. bul wane say pare na gars mais mais mais du fàtte du ma fàtte suma suma ah. suma papa. Maxu. Maxu ñoo fii nag Omar ñoo liggéey Maxu liggéey leen liggéey bi. ñëw jàpp ci. suma suma marraine sama mama maman Eva moo woote mais suma parrain fàttewu moo ko Pape Mayel man duma jàpp mbaa muy wut di teg di dool benn laa xam ba Pape Mayel Diop. nee na dina maa la ko wax. mu ngi ci bés bi moo it dina ci jàpp c'est sûr. kon nag tëjal. acca sañ-sañ. sañ-sañ. waaw gis dëgg ko yàlla may nu ko kuy muri tey ki yemale ñàkk ko am jëfandikoo te bàyyi tere nangu ne yàlla buur bi kenn la rasulilah mooy nabi ngeen di yéen sëriñ Bamba am morom yàlla wutal ak ko morom ilaa yaxaada law malam yakuni wala yakunu abadan li mumkini sañ-sañ man-man ngëm-ngëm la bu dëgg xaatim rasool yàlla gi tax mu ne def na ko muy moom te kenn du moom si maamul wara sañ-sañ man-man sëriñ Bamba du koy jum yàlla mucc na ko ci ñu nee na maanay saalu te may ma kon yàlla may na ko lu mayul kenn te nu raxas xol yi te baloo te xam na ñoo bokk kenn ki nu bëgg ki nu bëgg ma ne su ko bëgg ba noppi di bëgg lenn lu mu bëggul ki nu bëgg te fa bëgg dëgg te bëgg ñu bëgg ko ci ñime dëgg woy ma woy bu woyul ma woy ki jara woy ndax xelam ma woy dëkk bi nu ne am na boroom te boroomam amul moroom ku ko nara wutal moroom sa boroom wala ne moo la moom ndax sëriñ Bamba ci leneen da caa xaju ku fab leneen teg ko ca day xam xolam sañ-sañ ngëm ngëm ngëm ngëm xaatim rasul yàlla fi tax mu ne def na ko muy moom te kenn du moom si maamul waraas ri sañ-sañ ngëm ngëm ngëm ngëm la murit yaa ngi koy yëg waaw waaw Sénégal yéen a ngi koy yëg maam Bamba des sa guitare dogote dogote ko ci Bamba sa xalam dogote dogote ko ci Bamba dogote mu neex a neex soo ko dogote dogoteewul bilaay ci bamba bamba nga tooñ ko léegi léegi mu baal la léegi léegi nga ñaan ko léegi léegi mu may la léegi léegi Sénégal bamba baax ja kenn du bamba te koy lam-lame sooy demul biro ndar ba ah ah ah, ah, ah. jeex na